حسن الإله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 wa ila saadati daaimati farrih biha rasulallahi sallallahu taala alayhi wa sallam haysa quriat aw kuribat aw nasr ilaha badan amin ya rabbal alamin wajalha mima tadxana biha alxurul ayn wal wildanu fi ljannati lati lam taqun wajalha mina basuri ilayka wa ilay alayhi salatu wassalam bismillahi yanmuluhaayi bila manaahi wala intihaayi حمدا لربي خير مربي قدر ما قلبي بالاقتداء له سكوري بلا كفوري وهو نسيري من فدائي له اقترابي بلا اقترابي له خطابي مع اهتدائي لك ردائي لك سنائي لك التجائي ما اعتدائي يا من سفاني يا من حماني هم من جفاني بمحو دائي أسبل ستوري أصلح أموري كسر خيوري بلا كدائي يا من أجاب man istajaaba habli ijaaba bisan nidaayi yaasal jamaali yaasal jalaali yaa xayra waali safilu haayi yaasal wuhuudi yaasal wujuudi kulli bi joodi bilantihaayi safi wusuuli bila xufooli li jut bi suuli jami ridaayi habli tilaawa mahal halaawa habli diraaya ladal adaayi aslahta haali bilardihaali bidiyaali bilaa bukaayi naqbal mataabi wahmi janaabi wasunmaabi jawit sakaayi xinil xaruura wa mul xuroora habli nusoora mahatikaayi xudli nawaala yun mi kamaala yaa man taala hansurakaayi sitahu daaya huta daaya libiri daaya duuna stikaayi yaa xayra muxni ana bi maani halay usni bila xalaayi laka sukoori hinda duyoori yaasal qusuuri bila jaraayi yaa man kasaani yaa man saqaani yaa man hamaani hanil xalaayi anta muraadi anta himaadi nawir huwaadi yaa saddiyaayi sansahta aybi asabta raybi zaharta jaybi kalasfiyaayi anayta sayri tayyabta mayri kulli bi xayri kalatqiyaayi yaa xayra muuyi كل براي وغير ساي كالاستياي هب الاستقامة قن الملامة هب الكرامة بس اللواي بس الجمال بس الكمال بس المهال بس الدواي بس الهبادة بس الإفادة بخرق هذا الأولياء بس النوالي ليس القتال مرد الرجال على استياء بس الصحابة سوي الإجابة يا الإجابة سوي الدياء بس الهراب جال الكراب نور الأريب ما هي الرياء ساك المنير saakal basiiru law siiru bisa sanaayi allahuma salli ala sayyidina Muhammad salim aski sëñ Tuubaa yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di leen baalu àq te di leen baal àq li waral ñu yëkkati kàddu yi nag mooy jamono yi ñu toll bari na ay yëngu-yëngu yoo xam ne ku nekk ngi yëkkati kàddu di ko teg ci kaw jàngkati xasida yi mu doon kàddu yoo xamante ni ñaawlu nañ ko lool ñoo xamante ni dañoo bàyyi seen yitte yépp dëmbal xasida yi te xasida yi ku ne xam ne ne liggéeyub Serigne Touba ñu bàyyi lépp jàpp ko fu ñu toll di leen dambat di leen jéem a suufeel di leen jéem a doyadal te loolu nag fenn la tegewut ndax dégg naa am ñu ciy wax ne jànkati xasida yi dañuy jébbalu ci xasida yi duñ joxe addiya teguñ sëriñ si fenn nanguwunoo liggéey loolu moom wax ju yàq dong la ndax képp koo xamante ni mu ngi yëngu ci xasida yi am na sëriñ bu mu sukk jébbalu te ku ci mën a teg kenn loxo ni kii gis naa ko mu jébbalu ci xasida sàngam nga wane ko amut boo ko doon wër ba àddina di tukki doo ko gis kon loolu ay sos la ñuy wane ne teguñu fenn sëriñ si loolu du dëgg amut ay taalibe xaqan lan yaakaar siñ Tuubaa moo tax ñu jàpp xasida yi di ci jàng ñiy wax ne nanguwunoo liggéey loolu wax ju yàqu la bari na ñoo xam ne jàng nañ njàngum àddina ba am ca ay diplôme ay at ñuy war liggéey te mënuloo am liggéey kon koo xamante ni amut benn diplôme ci xasida yi la nekk bu bëggee liggéey boo ko ca jàppalee jox ko liggéey dana liggéey waaye toog fañ toog naan danoo nanguwut liggéey loolu doxalu dara boo ci bëggee am firnde nga woo ci kenn jox ko liggéey ba xam dana ko def wala du ko def dafa am tuuma yoo xam ne dañ koo jël teg ko ci seen kaw te tuuma yooyu ñun xam nañ lépp daa am lu nekk ci suuf ab lobby la rek ñu bëgg suñ waxee loolu di influencer nit ñi ñuy gis loolu ndax sëriñ bi dafa wax ne xasida yi def na ci loo xam ne képp ku ko jàng ku taxaw moom di ko jàng dana la tërbiya tarxiya la te wépp yi wu ni sàkku it mi ngi ci biir xasida yi nag yow miy wax loolu nag waxi sëriñ bi nga bëgg a weddi ndax ki jël xasida yi di ko jàng nga bëgg ne eh, da cee yàqoo wëral ba àddina tukki ndax ba xam da nga mos a gis kenn koo xam ne dañ ne da doon jàng xasida yàqoo ca amut siñ tubaa du def luy yàqe njariñul kese la ñii nga xamante ni ay ndaw la lan am na ci ñoo xam ne ñuy wax ne dañuy suufeel alxuraan ji déedéet benn ci kii rek seere la ci daara alxuraan la mën mii daara alxuraan la yor daara alxuraan la yor keneen ak keneen ak keneen alxuraan dañ koo fonk ndax Sëriñ Tuubaa ko moom suñ boroom da koo rafaatale sëriñ bi dañ ko fonk bu wér a wér a jàng ko ba mokkal ko yor ay daara di ca tàggat ay gone ñii nga xamante ni tamit ñooy yëngu ci xasida yi bari na ci ñoo xamante ni léegi ay daara lañ yor seeni sées boo fa demee dañoo jël ay jàngalekat ñu fay jàng alxuraan di ko mokkal di leen tàggat ci xasida yi ñu koy jàng di ko mokkal di ca aw ci yoon wan ca war a aw kon suñ wëlbatikoo rek benn équipe bu tuuti nekk ci suuf jël yooyu yëpp fabriqué ko teg ko ci kaw di di ko manipuler nag euh, euh, ñu di ko siiwal ñi di ko dégg nekk ca bitti jàpp ne lii lu am la te dara amu ci képp ku ci wax ne am na teg ci loxo kenn nga ni kii maa ci teg sama bët nii la deme nii la demee lii lay def amut dañuy wax rek yàq xasida yi képp leen tax a jóg kese kese moo leen tax a jóg moo ne de bari na ci ñoo xam ne ay caaxaankat la woon nekk di football ñee nekk ca làmb ja ñee doon agresseur di rey ay nit dégg ñee nekk di di musique te bañ duggee ci xasida yi lañ bàyyi loola amati complexe complexe ci def loola kon lépp loo xamante ni boo ko jàppee mu tax nga bàyyi am fo loolee lu baax la kon bu fekkee gis nañ ci dara ci ci kuréel yi nu ñuy doxee nu leen neexut loolu du waxi média taxaw ci rajo bi di leen toroxaleek di leen damm te mil ne dañoo doon bokkut ci murit gi wala dañoo doonut ay jullit loolu kenn du ko def sab nawle bu doxin wi rafetul ci ñoom nañ woo ñi xam jàpp nañ ne seenu doxin rafetul ñu ne leen lii yëg lii yëg lii kat ci laabirante buñ ko doxee woon nii kon dana gën a rafet bu boobaa nit ak mbokkum taalibeem loo jàpp ne lu baax la boo ko conseillé dana ko def waaye loolu amut toroxal gi rek lañ ci bëgg ak di siiwal ci rajo yi ak di wax ku ca war a amu yoon am ko ca ku ko ca wërta am am ko ca loolu jëm jéem a weer mbirum sëñ bi rek lañ ci jublu jéem a weer mbirum sëñ bi rek waaye ñoom ñoo ñu di wax ñu ëpp ayib ñëpp kenn ku nekk nag sa ayib bi bopp doy na la buñ yemoon ci seen ayib bi bopp ja ñiy nëbbu kon duñ duñ ko fa weesu di dem ci ayib bi jàmbur ñëpp kenn ku ci nekk am na ayib joo xam ne bëggul nit xam ko te seen nga ñi nga xamante ni ñaari mbiri nga ci xasida yi xëy na am na ci ñoo xam ne yàqaleen tax a jóg ñoo ñooñee yàq tax a jug nga xam ne xam nañ ne liggéeyam suñ tubaab bi moom fii ak yaa ngi jàng xasida di gën a bëgg sëriñ bi di gën a tege ci yoon wa nga war a tege am lobby boo xamante ni bëgg nañoo tas loolu tax ñu ñu ñu def benn lobby ngir di am sabotage yu ñu def benn benn yooyee ngay gis xamal ne ci lobby boobee lan bokk dañuy dugg ci seen biir su ko defee doxe noo xamante ni luñ wër te doxee la wala ñu toog ci mbooloo wax kàddu goo xamante ni kàddu go safaanu la nga dégg ko. boo ko déggee daan ne jànkati xasida yi duñ ci dara wala nangam wala nangam fekk naka ngay jëlee loo xam ay junniy junniy junniy nit lañ nga xool ca fukki nit ñoo xamante ni ñooy sabote nga bëgg looy wax rek maase la ñëpp ne jànkati xasida yi baaxul ku ko def yaa ngi tooñ te maanduwoo te yàlla dafa santaane maandu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp nga ba nga maase ne eh, eh, danoo baaxut kon waxi sëriñ bi nga wedd di sëriñ bi wax ne xasidaam yi képp ku koy jàng ni mu bëgg nga mel ne da nga ne mel. nga ne jànkati xasida yi baaxul awun yoon war war a aw kon de waxi sëñ bi nga weddi ndax ñoom ñi ngi xëy ci xasida yi di ci gont ay benn benn képp ñoo ci bëgg saboté liggéey bi dugg ci biir bu ñu toogee ci mbooloo di saboté di wax wax yoo xamante ni nga dégg ko ba baa nga enregistré ko su ko defee nag ne jànkati xasida yi naa nga maasale ko ci ñëpp loolu du wax wax ju tege fenn am na ci ñoo xam mën nañoo toog wax wax ju safaanu ba tey fekk dañoo xaw a nitooriku seenum xel nekku fi nga bëgg a jàppe wax yooya bëgg koo maase la nag booy wax maase la ca ñëpp loolu moom wax ju yàqu kese la xasida yi gis gisagun ku ko jàpp yàqoo ca ku ko jàpp defaru ca rek lool loolu la ñuy gis am na ca loo xam nag du jar sori ñii ay gone képp lañ dañ leen war a jàppale ñii ay mag lan ñoo xamante ni seen dund gépp ci xasida yi lañ ko def kon dara ñoru leen lu dul sëriñ bi te dañ koy gën a bëgg rek di gën a fonk xasida yi xasida yi moom jërul sonn kenn mënut a fexe bañ bàyyi ko dañ koy gën a jàpp rek waaw su ko defee nag dammat yeeg yépp lu mën a ñàkk la ku ci gis daal képp koo xamante nii gis na ne li sëriñ bi santaane nekku ca sëriñ bi nag euh, euh, euh, lépp lu suñ borom digle yonente bi digle ko wala suñ borom tere ko yonente bi tere ko loolee lay sëriñ bi tere loolee la bëgg loolu la digle képp koo xamante ni gis na koo xamante ni awut ca loola kooka dafa wàcc li sëriñ bi digle jàng xasida nag dalay gën a xiirtal ci bëggug sëriñ bi bëggug sëriñ bi nag mooy la yàlla bëgg yonente bi bëgg ko ku ku ko taxoog moom daal dana la tërbiya tarixi yàlla ba nga mel ni sëriñ bi bëgg nga mel ni dafa am tubaab bu mos ñëw njëriñ bi mu ñëwee ñu boole kook ak sëriñ bi waxtu wu nekk mu day jekki-jekki di ko bett ci biir kees yi bu dikkee day day xool euh, sàkket moom gën a jege rek mu xotti ko jàll sëriñ bi wax leen ne leen bàyyi leen ko bu ba bu ëllëgee ñoom ci seen biir moo leen di leeral sama mbir ba bis mu def benn euh, rapport wax ne li ngeen bëgg kii bëggu ci dara moom li mu bëgg yéen bëggu leen ci dara waaye nag bu ngeen bëggee yoonam wi taxaw am na lu ñuy wax xasida xasida yi muy def ñu di ko jàng loolu ngeen di fexe bañ bañati koo jàng suñ ko noppee jàng rek li ngeen bëgg da ngeen ko am waaye fii ak ñi ngi koy jàng dañ koy gën a bëgg te duñ ko tey loolee nag moo continuer di dox ñun gëstu nañ ci am nañ ci information yu wér ab lobee nekk ci suuf di manipuler yëf yi su laajee tuddi tur nag danañ defaat beneen déclaration tudd ci ay tur kum laaj ñu wax ko am nañ fitu wax ko danañ ko wax nañ bàyyi jàngat xasida yi defu defuñu dara lu may nekk ci bëgguk sëriñ bi kese su ko defee nag yéen yi nga xam yéenay jàng xasida yi ñu dénk leen dénk gi mooy kenn ku ci nekk fa nga nekk jàppal ne yaa ndawul sëriñ bi mbooloo ma nga jiite fexeel ba xamal ne am nañu ubbi seen bët am yoon wuñ leen fàkkal ba ngeen jaar ca ngir fakkastalu yoon woowee fexe leen ba bu leen ci jege sax ba di ca jaar waaw bu leen ko jege mukk ci àddina ndab lañ leen bëgg a ba ngeen lekk ca bu leen ca lekk lekk leen ca ndab la leen sëriñ bi tibbal waaw te fii ak yéen na ku ci daan jàng benn lii wax yi am na tax ba nga yokk ko ngir ngir xam ne lii ab soññ la ci ab soññ képp la lu ab képp la loolu daal mooy ndénkaani la képp ko xam jiite nga ci mbooloo tama sañ laa dénk na nga xam ne na nga tënk sa mbooloo li sëriñ bi bëgg moom weesuwut li suñu borom digle yonent bi digle ko wala mu di ko tere loolee ci la sëriñ ba tënku képp ku ko wàcc moom eh, eh, la la sëriñ bi digal wàcc nga ko teg gise guñ nag ñun jànkatu xasida bu ñàkk diine wala jànkatu xasida bu bu contre sëriñ bi te nag li war a li ñu war a wax nag te waxuñ ko bu fekkee danoo bëgg lu ñu war a wax rek dëkk baa ngi fees dell ak ñu ñoo xam ne dañuy mbubboo daare alxuraan di contre Sëriñ Tuubaa ñu ngi fi bis bu set nga teg ci sa bët mën caa jàpp kenn te boo nee ma tuddal ma tuddu tur nga mën caa teg sa loxo jéggi leen fa amoo looy wax ak ñoom di wax naan jànkat xasida yi nangam jànkat xasida yi nangam jànkat xasida yi daal maa ngi sàkku képp koo xam ne teg na ci sa bët koo xam ci xasida la jébbalu wane ko doo ko gis mukk la ñoo daq joxe addiya day dañuy wax seen dañoo nanguute liggéey dañoo amul liggéey liggéey addina bépp bëgg a liggéey te taxut ñu am ko la leen sëriñ bi suturaale nag ña nga cee jàpp ña ci am ña nga cee ña nga cee liggéey moom ci misaal bi si xasida yii di am benn dërëmum nit bu mën a taxaw ne jàppe naa ci dërëm amut lépp alali jànkat xasida yi la ñooy dajale seen alal muy tuuti muy bari ñu di ko ca def te xoola bisi ni mu baree ñaata téeméeri bis ñooy am ci at mi boo ko doon boo ko boo ko doon këlkin kenn xamul nu doon loolee boo ko génne woon ci économique bi dana ca feeñ ñàkk joxe gi addiyee gi ñuy wax it ñooy doon ay daayira at mu ne kenn ku ci nekk sab daayira dana dajale dem ci ki fi nekkal Sëñ Tuubaa jébbal ko ko liggéey Sëñ tubaa bu fi amit ñoo cee man kon lii ñuy wax nii jërul nëbb bu fekkee nag daa am lu nekk ci biir ñoom nañ taxaw leeral ko buñ ci nëbbatu ñun xam nañ ci lu wér a wér wér loo xam ab lobi la benn nag ñoom ñay wax ñu bokk ci lobby ya wala ñu xañaan wala ñu kontur Sëriñ Tuubaa doo nga fi man a nekk ndax jàngkati xasida yi moom kenn ku ku kuy mbubboo Sëriñ bi eh, eh, dugg ci xasida yi amut képp koo xam ay tappalee la tax a jóg nga dugg ci xasida yi ngir ba koo yàq xanaa nga ngàbba ko di ko lagar-lagaree waaye jàng lay bañ booy jàng rek Sëriñ bi di la dëpp ba nga ba ngay baax waaw kon lii ñuy wax lépp moom amut solo bu leen yëngal bu leen dégg kenn ku leen i wàññi wala mu leen wax lu leen wërta wax ba mu naqare leen sax bu leen naqare jàppee leen ko ne ku bëgg a yàq liggéey bi Sëñ Tuubaa dong maa ngi jégalu kàddu yi jaageen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يعيش بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني bismillahi rahmaani rahiim rabbana taqabbal minna bijaahi nabi sallallahu taala alayhi wa sallam bismillahi rahmaani rahiim inna allaha maana ahbabtu rabbal aalamiin maalamiin wal aalamiin wan xaada zikru lamiin لكالكيل وجسدي أحببت رب العالمين مع الآمين والآمين وانقاد شكر الآمين لكالكيل وجسدي نجد العرش العظيم bilo bi may duri na shim waliyaka nabi ashim wasan ani anu jadi nabi taw idillat qalbi yara بالملتعات ولم ياكل نيلي آت في سفاري وبلدي إلي قاد في سفر خلي وأهيب ببسعفر مستغنيا عن النافر بجنده في خلدي لم ينهني مباريسو وفيل رب باريس إبليس لا يباريس جند الهاشيش الهادي لم ينهوني من تارت أو من لقلبهم عيرت وليقود في الخيرات ربي يا ما لم يجهدي الله كان لي بما يبقي سلالا سبيما خادا ولي خوتا بما خاد وخير رقادي الديات لا المهم ساقت لي خيرها الله واليوم بالله يوهين من ساءه وفي قاد مدلي يا الله البصر بجاه سيد البصر ولي يوم لا نصر لمن هو الغني لا الهليم مما يساء منه لوم وسباغت اللي بالكلوم منزرفا بسفادي نجيت ربي الكريم بكتب ليس الطارم انوارها وليروم أحمد خير سفادي الله رب العالمين صلى على هادي الأمين في الملائل مكملين عن روحنا والجسد الله رب العالمين صلى على الهادي الامين في المعالي المكملين عن روحي نعى والجسد فشت بسار في الحسنات سيدة لمحسنات مريم فوحت مقينات عند الله شيء لم يدرك كن فيكون لك خات خير رسول الانتخات وبك فاسنتخات ولم يكن بمشركي لم يخب عند المؤمنين كونك بالمحسنين يوم خير محسنين معصومة من سارك يقودني لمدحك mahan ki fal han xaatu ki fusti bi bisril mulhiki kulla taqi mudriki wajatu kel yawma bima yudimu li xotan bima illahti wa إسابيما من خير خاس دي داركي أنت سلالة الكرام ما أمانا وكهارا وأنت سلالة تلتيرا بلا انتهاء نشرك سكر ربنا الكريم سهنوك سكرا لا يريم إمنوك نعلمها يا رهم عند الله شيء لم يدرك رمت بسا من حبك lan yu di ma xurbaki min rabbi saatil hubbuki muhtil huda wa nusuki billahi shi kun fayakun talabtu minhu an yakun lakini saami saarukun وأن يتيب من ساكي يا عمر المالك يا عمر للالك ابنك لا بعليك عند الهالي مماشيك يا عمر المالك يوم جاء للهالك ابن كيلا بهالك عند الهالي مماشيك بارك فيك سل الجلال وفهمنيك في الهلال بما يخلد الهلال li xaari in mu masiki hadiyati xusbila raddin kama tuqubila hindakari min qabila من جديك المستبرك هدياتي خسبلا رد كما تقبل هند كريم قبيل من جديك المستبرك بسم